Paris ki nga xam mooy njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Faye jot na daje ki nga xam ne mooy njiitu ba woon di Abdou Diouf daje boobee nekk lu am solo te diggante ñaari personnalité yi ak joxante loxo bu nga xam ne la muy témoigner rek mooy doxalin bu bees ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllum politique nee na lii kat Diomaye mën na cee gën a profité jege Abdou Diouf bi nga xam ne kat mën na ko conseiller. Abdou Diouf expérience am Abdou Diouf respect bi nga xam ne am na ko sur plan international ak fi mu jot a jaar jàpp naa ne mën na jàppale ki nga xam moo di Euh, ndaw bi nekk njiitu réew Sénégal jàppale ko si expérience am jàppale ko si carnet d'adresse am ñi ngi jëm si exploitation pétrole ak gaz bi tamit am na lu bari lu mu ko mën a xelal ba pare mooy tun mooy tundikloo ko li nga xam moo di groupe de yi nga xam ne moo di lobby te lobby mi ngi partout donc lu si mën di am rek jàpp nañu ni daal euh, ndaje boobu ndaje bu baax la te itamit boo nekkee ndaw di daw ko tàmbali baax na ngay seeti mag ñi nga xam ne ñoo la si jiitu buñ sukkandikoo ci Ali Fari Ndiaye moom analyse politique la nee na Abdou Diouf ci boppam ñëpp xam nañ ne homme d'état la nitu réseau la waaye tamit nit ku sage ba tax na loole daal Diomaye mën na cee gën a am jàngat. donte ne période am ak ayam ajustement structurel bi réew mi xawoon na métti économiquement mais diplomatiquement ak euh, au niveau international yore na Sénégal yorin bi nga xam ne moom la ko waroon a yoree. ba ñëpp céral ko ñëpp respecté ko te loolu euh, Diomaye bu nekkee un jeune président war na mun a inspiré wu ci expérience boobu président Abdou Diouf am war na mun a inspiré wu ci élégance am ak ci sagesse am pour moom tamit mu mën a topp ci tànk yu mel noonu ab Abdou Diouf bi nga xam ne mën na cee jaare yi tamit rek dimbali nga xam mooy Jomaay Fay Jomaay tamit nekk ci tànk yi Macky Sall mi nga xam ne moom itamit jot na daal di nekk ci peggub Abdou Diouf